bismillah musiba kay corona gi la tribune yéene kaay ne lu tolloo fukki junni ak juróom benn day ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar 16527 travailleurs ay liggéeykat yoo xam ne day waaw ña kër de chômage technique baa dal mar di tali dama ne bu ñu sukkandikoo nag ci am enquête woo xam ne day diggante mars 2020 ak mars 2021 gi la lañ ko daal di kon réaliser dama ne la ministre day Samba Si moo ñu ko waaye nag wàllum corona gu bees ak troisième ba waaw dama la ministre de la santé action sociale day ñoo tey tidde ñoo tey tidde libération yi ne kaa ne pourtant day ah seetlu nañ ne mi ngi wàññeeku nag noo mi ngi wàññeeku le témoin yéene kaa ne wàllum gi la waaw lu tolloo ñeenti téeméer ak ñaar ci ay doomu aadama ci 2020 ji la ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ilaha illallah ah maa la ko wax dama la la muy corona gi ay risque nga ca de critique yéene kaa gis nga wàllum foire bi lé bu ñu sukkandikoo ci directeur général ba Saliou Kata waaw daal dinañ koy aje mar di taali mbas mi ci boppam a taxoon ba foire bi tamit ñàkk na lu tollo ñaari milliards la ilaha illallah tey corona gi ci ñetti at yi nguur gi génnee lu tollo cent ah, waaw tribune yéene kaa gis nga poste premier ministre ba day boo sàgganee danañu ko indiwaat ci 2022 de a dee wexu parce que président Macky Sall waaw moo dindi woon que mbir mi gaaw moo du fast track ah waaye ñaari atu yàlla ginnaaw ba mu ko a day dana ko indiwaat de dossier yi ci boppam kon ñoo diis ngir bañ a waxoon ne dafa bëri ak problème yi nga xam ne nag moom la nit yi jànkool daal mbirum social waaw problème wàllum koom-koom gi ak mbirum politique ba ci wàllum justice bi laa la wax dama ne la suñuy partenaire ci boppam waaw bu ñu sañoon dossier ci boppam kon ñaari doomu aadama kon ñoo koy gérer président de la république ak doléance ba ak ndaw li nga xam ne moom la xalif général ak murit yónni waaw opposition ba doy teg nañ seeni doléance yegg nañ ko jëm ju tedd ji tribune yéene kaa ne Abdoul Mbaye ak nga ah la ñuy sàkku daal mooy ñu falaat procureur bu bees ak doyen des juges bu bees eh waay samba day diis sursa ne diis dëgg la def dama la opposition ba kay la ñuy sàkku ci Macky Sall mi mooy xanaa Macky Sall indil weer wi eh waay mbéte malaaka réew mi quotidien dama ne la opposition bi ñaar Macky Sall taxaw ci kanamu adduna bi yëpp déru def kon troisième mandat ñett wàllum na ñu ko indi waat laa la wax coowal Franck Timis ak Alioune Sall nañu ko indi waat coowal pétrole bi lay sa ko yéene kaa waaye Serigne Mountakha tamit day waaw daal dinay xamal nag opposition bi lée ñu ànd dal rek nañ ànd ak dal rek ba noppi ne lu tolloo juróom fukk ci ay millions day ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo loru la ci manifestation yi cay mbàkke balay si 24 heures yéene waaye nag boo seetloo ndaataata la xaggu ndaa ndaatak noos nga am ca diwaanu Matam gëlay mais day wane nguuru Macky Sall gii deful benn njàngat njàngat lu xóot ci li fi xewoon manifestation yi defuñ ci benn lecture la wax Sud Quotidien ne terrain politique bi nga xam ne nag maanaam ñëpp dañ ca mujj wàcc buñ ba opposition bi lée Ousmane Sonko yëngal leen Sonko leen da nga ko doon jàppale ci la Ousmane Sonko demee seeti Khalifa Malick Gakou Serigne Mansour Sy Djamil Thierno Bocoum Babacar Diop Y'en a marre ñoo lànk doy na bi ñu bëgg ca jamono jooju ca Ousmane Sonko nekkee sur le terrain waaw front de résistance bi nga xam ne waa PDS dañ koo génnoon day waa kër Abdoulaye Wade delluwaat nañ ca biir waaw ñooñee tam ña daje ak waa MDD CRD jot na syndicalistes yi mouvement yi société civile activistes yi lanceur ak yeneen i personnalité ak yeneen i personnalité sax yéeni kaa ne waaye nguur waaye fuuta day dañoo fipp de fuuta ngey dañoo fipp fuuta tampi fuuta fuuta fuuta tampi Abdou Mbacke Bara Dolly day député opposition bi waaw nee na ñun day ñu ngay liggéey ci dara de ngir baal Macky Sall mi la bu dee d'accord ne du présenté 2024 critique yéene kaa ne waaw parce que ay buntu troisième mandat yëpp dañ koo kanaar dañ koo tëj waaye opposition bi nag ubbil na palanteer Macky Sall mi la ngir bu d'accordee dem daal ci 2024 waaw Macky Sall kenn du ko topp kenn du topp jabaram kenn du topp ay jegeñaaleem sursaane waaye Cheikh waaw Sonko da koo woo de Ousmane Sonko woo na député bi de Cheikh Abdou Dey Mbacke Bara Dolly waaw nee na taxawaayu Ousmane Sonko ba mu taxawoon ne bu gañee réew la day topp président Macky Sall ak njabootam day méngoowul ak jamono ji nga xam ne moom lañ nekk nii nii nii nii nii nii nii nii déedéet Mamadou day ci tribune yéene kaay waaw nee na boo gisee xale yi daal di génn di manifester nii Macky Sall ko waral parce que Macky ci boppam kon moo bëggoon a jël pétrole muy zéro lu tolloo ñaar fukki ci ay kilifa ci réew mi toog ci ay milliards milliards di préparer élection présidentielle 2024 dugal ay junni junni ci ay famille ci ndool goo xam ne maar di xale yi génn ca mbedd ba Macky Sall 2014 la commencé jaxa-jaxate kon suñu démocratie bi la jël wàllum justice bi la daal di toog di écarter ay politiciens laa la wax soppi code électoral bi yàqate fichier électoral bi la financé ay liste yoo xam ne dafale a Mamadou Lamine Diallo ARS sax ma jàpp Direct News ne mais xoolal ma suuf si kon ni koy tong-tongee syndicat des impôts et domaines day waaw ñi ngi ndaataata lax di noos ci suuf si la lu tolloog fanweer ci ay parcelles yoo xam ne day ñi ngi xam le ne jébal nañ ko syndicat des agents des impôts et domaines ba nekk ca booro BOAD gëlee ca Almadi ngir dëfalee ko te parcelles yooyee nee nañ bu ci nekk juróom-ñaar fukki millions soixante-dix élection locale yi day waaw dogal ba tey ji ci suba lay wàcc Dakar Times ne non dogal ba koy wàcc na élection locale yi day dañu koy ajaat kon ba 2022 eh way samba mbas maa fa jaar le témoin ne kaa ne ëttu bi ne yàmbal ak ni lé ci opposition bi waaw Karim Wade est-ce que ne mooy nekk ministre bi nag te est-ce que nekkul ne Ousmane Sonko tamit day ni mu ne saax ci ëttu opposition boobu de eh, est-ce que li fi yenn punkal yi nekkul la Mohamed Bassirou Diop day jàpp bu ñëwoon xanaa xamoo ne day baax sax si nguur gi ah, ah, <laughs>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 mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleeg coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement